alhamdulillahi rabbil alamin Wa laqibatu lil mutaqin wa salatu wa salamu ala man ursila khudwatan lil alamin wa qalbuka ala sadatin ambatin tabkil aradi ka samawati Mbaki di bu di leen ziaré di ci jiital sëriñ Muntaxa Mbàkke moom mi nga xam ne moo toog ci jotaayu Khadim guddal fanam lol te wéral ko ba mu eggale naa li ba eggale naa li boppam nga yéen gi ñuy top ci seen euh site bi di jant bi TV waye and ak réseau DTL bi yëpp jant bi FM ci Touba 95.2 ñi ngi leen di ziaré bu baax di ñaan suñu cadeau fekk leen ci jamm di leen dokkel bu baax nak ci weer wi nga xamné ci lañ dugg mi weeru safar nga xamné sa bu duggé rek mbégteem ma nga xamné moy mooy julit jullit di mbégteem talibi daal dinay door ba ak muy ñëwaat ngir lan ngir ci la Cheikh na Abdou Cheikh na Abdoul Khadim jotté won ngeureumal borom mam te moo xam ne saa bu ñëwee rek nañ ko ko santale eh, borom subhaanahu wa taala jataay yi nag bokk ci jataay yi nga xam ne dañ koy tàmbalee di santale Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ci wàllu xam-xam waaye nag eh, jooyale ko jëmale ko ci njabootam gi nga xam ne ginnaaw bi nga xamante ni bi tànn na eh, dëkkaale ji ak boromam te Cheikh woon ko fii ci Touba njëkk ko wuutu njaboot gi dox liggéey ci liggéey boo xam ne kenn ku nekk ci sab jataay liggéeyal nga Cheikh Abdou xam Xadim liggéey boo xam ne bu mucc ayib la waaye ñi nga xam ne jotuñoo toog njaboot gu góor gee gu jigéen ji ñoom ñëpp ci am kenn ku nekk am na taxawaay yoo xam ne mënu war a ñàkk tey nag ñu tànn kenn ci jàmbaar yi Cheikh Abdou Khadim yooyee nga xam ne seen taxawaay ba seen liggéey yu rëy yi eh, kenn mënatu ko werante saa ñu ko tuddee bu nekk rek xel yëpp dana dem ci dëgg dana dem ci talibe dana dem ci alquranu karim jàmbaar jooju mooy Cheikh Abdoul Ahad moom Khadim Rasoul ñetteelu xalifa Cheikh Abdou Khadim moom lañ fa yéene waxtaan tey jii ngir li ma lay wax rek waajale ko euh, bis bu tedd ba bii ànd ci nag ak kenn ci ay sëtam ji jàmbaar yoo xam ne gis nañ li muy liggéey Sëñ Tuubaa ci xasida di ko liggéey ci alquranu karim muy koo xam ne neex naa présenté lool macha allah ci présentation boo xam ne suñ tuddee turam rek xel yi dem ci alquran xel yi dem ci xasida euh, xel yi dem ci euh, ak taalibe muy Serigne Bassirou Touré moom lañ fas yéene ànd ak jotaay bii ngir waxtaanee jàmbaar ju tedd di joojee sëñ basiru ma bàyyi la nga nuyu mbokk yi su ko defee boo nuyoo ba pare rek daal di doxal nag ci jàmbaar ji nga am Cheikh mooy na Cheikh na Abdou Lahad Cheikh ah, Abdou Lahad Mbacké eh, ñetteelu xalifa sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci ay taxawaayam ci ay jukkoom ci ay eh, réalisation ci organisation ci liggéey sëñ Tuubaa mag bi nga xam ne defal na ko ko eh, bisimilah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه مانجي تامل سماي كادو تي تورو سون بسم الله الرحمن الرحيم دي سانت يالا يالا مي بروم مي ديفي تاي جولي دي سلمال تي اب يونانتام اك يونيام اك صحابام اك ليغي ياكونام بو ماك با غيناو لولو نيوغي نيو مبوك ييب nuyoo islaam te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di jiital ci nuyoo bi nag mbokk yi ñu seetaan yëpp ci jant bi teef yi ak rajo jant bi ak rajo jant bi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di ndokkeel ñëpp nag ci weer wu tedd bu barkeel yu ñu nekk muy safarul xayri wal barakati wal madani di weer bi nga xam ne ci la cheikhul xadim tukki woon Mm, te indi euh, sëriñ bu euh, duun bi kon ñoo ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp di am mbégte nag euh, fas yéene ànd ak yéen ci waxtaane nit koo xam ne nituk juddu la waaye nituk jikko la waaye nituk jëf la muy as Cheikh Abdoul Ahad mi nga xamee ne mm, doomi Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne dañoo samp kër tey góor mooy juróom-ñaareel ba waaye doomi seexul Khadim bi nga xam ne jot nañoo toog xilaaf ak Cheikhul Khadim mooy ñetteel ba loolu nag day wane ne léppam junj la gis nga sept soo ko multiplié par trois moo lay jox vingt et un loolu la toog ci xilaafaam de soixante huit a euh, quatre vingt neuf. kon waxtaane nit nag euh, damaa xamul ma lay joxaat kàddu gi wala waaw waxtaane nit nag dafay laaj nga ñëw ci askanam ñu jaar ci jaar bu gaaw. Euh, moom mooy Cheikh Abdoul Ahad di doomi Cheikhul Khadim xan yoon xani taxarif waaye bu dee ci waajuram wu jigéen mooy doomi soxna Marema Jaxate soxna Marema Jaxate doomi sëñ Modou Assa euh, mën nañu ko toppi ba mu sore waaye soxna Marema Jaxate mi jur ko euh, moom itam am na ñum bokkal sëriñ Modou Assa bu ñu ci tuddee sëriñ Hamsatu tudd ci sëñ Bakay سيدي عبد الرحمن سون فارجة أجن بقول سيدي دوي آه، سك واي بني وخيرنا سيدي ستمي جور آه، مود أستا مي سيدي ما ستا ما ستمي جور سيدي أستا مجور سوانا مريم مجور سيدي بلاد ما ستا مومي مجور سيدي جفافال مكو جفافال مجور سوانا سيدي جهات سوانا بنت جهات مجور سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي مصطفى بصيرو ak sëriñ Muntaxa ak soxna Kine kon foofu doy naa yem waaye bu ñu waxee ne soxna Marema Jaxate nag euh, waajuram mu jigéen mooy soxna jang sil libaas doy na sëkk ñu ne mook sëñ ma ñaaw sil la mu siiw mu kàng ma ñoo bokk ak ñañ bokkal ñëpp rek euh, euh, kon foofu doy naa yem ci wàllu googu moom nag ci borom irwa un nadim bind mi ngi gane ci ñaar fukki at ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kore atum junni ak ñett téeméer ak fanweer ak ñaar kon moo tax sëñ Mortaal Jaañ nee na ci ama balsasin la feeñ fa njaareem nee nañ keroog la sëñ bi wax des koo yéem nee na keroog diine ji ak lislaam ji bég nañu mbég mu rëy rëy ci gan gi waxaat yeneeni wax yu rëy ci daraja ak ngëneel wallahi mu am maxraja kon ci atum balsasin la gane àddina ñaar fukki fan ak ñett ci Corée loolu mooy tolloog la 14 septembre 1914 euh, sëñ bi ne wax na ci moom wax yu bare bari bokk na ci lu siiw rek nga xam ne ñëpp mënees na ko wax keroog bañ koy jox tur sëriñ bi moo wax ne ku mën aw turam sa yaram arab na sawara loolu sëñ Mouhamadou Mamoun Niang di borom xam bu ñëpp xam wax na ko ci ab kaset ñu Euh, dégg ko sëñ bi sax sëñ bi la woon na bëgg ak wóolu ak ragal ak yaakaar ku ma ko def pour yàlla tas naa sama yaakaar bàyyi ba may sàkkal sama tur wii am na mag yu mu fonk da leen a woo ba ñëw mu ne leen na ngeen ma ko ñaanal mu dund ngir dama ko yaakaar mu ne nag yaakaar joojee bis bu ma ko demee tas tas naa ko fekk ci bis boobu naa ko fekk ci bis boobu daane nit ki nag lu ko bakkanam jaralul boo jàppee ne sa bakkan jaral na ko euh, sa bakkan jaral na ko da ngaa kon ba mu gënee àddina sëñ bi wax na ne am na ci moom euh, yaakaar wax ne wax yu bare bare bisub gën a tuddam sëriñ bi daa digal Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana mu jox ko tur waaye mu digal ko boo demee bala nga koo jox tur na nga jàng ci noppam day joram ba xasiid ak fus si bi sarfin xasanaat sayyidatan li muxsinaat Mariamu euh, Foxti Moxinaat xamne kon khasside gogou mok ko blat euh senok magante du lu am solo ndax moom itam njaareem ci at momu lako ko bi def mom ak khasside yam àndal di ma fatul ji nan ma khaliqun ninaar jurom ñent yoyu ci bobu la leen sëñ bi way ta nak bir fusti sëñ bi ma ngi tag mariama mi nday isa ak isaa alayhi salaam waaye day mel ne lépp si iblaat ak waajuróom bu jigéen soxna ma rema maa ngi ci biir xasida googu waaye nag ci wàllu tawriya kon mu ngi noonu moo tax woykat ba nee na bu bis bi delsee mu daal koy berneel daal néew turam Abdul moo barkeel am naa yaa am naa ci yaakaar lool Abdul Ahad kon jooju yaakaar seere saay jëfam yi kon noonu la demee woykat ba sëñ Mor Talla Diagne nee na xaal ja sëñ bi jógee ci géej gi mom la ko jox mu jitu jiireeg jéeréeg djegi gi djegi wilayatu sariatu yawon ca nariya bamba ko djel jox ko mu jitu gaaya lola nak ba sëñ bi di defal xasida wa innaka la tulaqal quraan la waxon asalu man laysa lahu kufan hat salaatuhu anni ala alhabdul hat fofa la ko sun borom waxe ne ko dana la may dom yu tuddu abdul ahad dama la koy fayee liggéey bi nga liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wax ko te yam ko yam ko wax ba mu ba ca yéen joof nag ba may defar xasida li maahin bashirin la ko sun borom nag joxo ndigal nag mu wut soxna su mel nangam ak nangam ngir koko man caa feeñ moo ci biir xasida li maahin basirin mu kote ca turu abdul ahad aw si bi rabbiya wa huwa al wahid ahad min al lahini kafani sarra من يهدون بعت بعينك عوسي أكبا بربيا أكو هو الواحد مولا عبد أحرج من فرنيا عوسي بربيا هو الواحد أحد كون آه، مين نونو واي لما خون نحال جثرين بيجوجي تيجيجا مملكة جح مجيد جير جيجا لولا أمنا سبب نحترين بي تي بير جيجي دفا جون جون تيك سورة الإخلاص نانا سنتو بسر قل هو الله احد خسائد التوحيد عند من inda من دخنا بيسنا تسر قل هو الله احد اي خسائد التوحيد ay من بما نك تي ne ba ma nekkee ca ñëj di nga xam ne nee na ci sirru qul huwa ahad la doon xeexeeg ñi nga wax xam ne dañuy wax ne yàlla ñett la ci la xeexeeg tubaab bi nee na ci sirru qul huwa ahad laa gañee tubaab bi def ñetti xeetu tawhid yo xamne lépp ci sirru qul huwa ahad la afdal tawhid euh ak arfahu tawhid ak haqiqatu tawhid ñetti xeetu tawhid yëpp sëñ bi bind nako bu ton guddaay bañ mu gudd dana ci ñëw waye nak loolu dafa def jeexital ci mom ba tax sëriñ bi changé sax nam daan doxalee lu jiitu muy dem ci géej gi xam nga sëriñ bi lu jiitu muy dem ci géej gi ku ma am rek da lay tuddee yonante bi ak Cheikh Mahamadou Moustapha ak Cheikh Mahamadou Fadil ak Cheikh Mahamadou Amin ak Cheikh Mahamadou Bachir waaye bi mu jógee ci géej gi nag nu mu def sëñ Abdoulahi borom dër bi sëriñ sëñ Abdoul Ahad sëriñ Abdou Samad waaw nga xam day wax ne ñii seeni tur dama leen a jëlee ci biir secret xul wallahu ahad ndax xaal jooju moo des ci moom akramani bi qul huwa allah ahad rabbi an yakun kufuwan ak kaafa ani man mahlu lahu kufuwan ahad bi maa leen khayri maa leen man jaat sëñ bi yu wax na ci moom yu bare bare waaye loolu doy na ci ndax am na ci xam dafa biire ba ëpp te nag dañoo digal bu ñu wax nit ñi ñu wax ak lu tolloog seen xel kon sëriñ bi moom daana bigle di wax ak gane àddinaam naan damay waaj am gan gu tedd na ngeen ma ko terle sëñ bi sax bind na ak xasida ci korite gi sëñ Abdul Ahad gane àddina mooy sawaalu xaama barsachin korite 1332 muy wax ci biir naan basharanillahu taala bi sawaali basarin sun borom mi barkeel te kawe bégal na ma ci korite 1332 korite googu la sëñ Abdul Ahad gane àddina moo tàmbalee shahida li muqnin xinil kayfiyati bi kawnihi li abadan fi niyati ma nga naan xalamte ni bi xolo wala ahad bi annaka la si kafaani man jaxat kon noonu la demee ba tey guddi gi mu waree gane àddina sëñ bi daa dajale nit ñi ñuy jàng xasiida muy defar ay berne defar café defar ataaya ba defar ci ak xasiida mooy laylatu balsachin بشارون جدك من تروح نتران دال بيتلا بوتام بنيتي وعيو نجك ورد دعا خمني نانك أنا في جانب والدي وأدنى نحن لخير كل والدين وما ولد خاد الحولة ذو خدم لم يلد من دال يانت في خاد موغن كيب كوجودو كنجور أك كوجوري يالله من خام نجور كأن جهنم فأكبر كن لولا جوالو تورية أمنا لم تي أنوسه moo tax biñ ko waxee ne ko soxna ma Jaxate yeewee ko na rek dafa jug rek ñëw gis muy góor mu tudd yàlla sant yàlla xam ne mooy la ko euh, sun borom digoon ne maa ngi ñaan yàlla nag ngeen yàlla na ko mu dund ngir am naa ci moom yaakaar ndax bu fekkee ne dund na ne sama mébét yépp dana ko mottali ci juróom-ñaareel fanam mu jox ko euh, awtura turam xas yi rek fussi sax dana am lu ma ci leeral giñ jàng ci noppi sëñ bi xam nga yonte yàlla isa sun borom da dafa wax ne ma qataluhu wa ma salabuhu bàgg ci ba rafahu allahu ilayhi mel ne nañoo wax ne ba ko yàlla yëkkatee ndeyam am na kumpa ci moom waaye nag bi mu ñëwee di ko laaj sëñ sëñ Tuba moo tax sëñ Tuba tontu ko ci xasida tuuti maan ko yaa umma ruuxal maalik yaa umma jaali haalik ibnu ki laa bi haalik indal haalik moom yow ndey isa xamal ne sa doom doonul ko alku doonul ko alku façon borom kon mi ngi nonu bisub tudamit la sëñ bi wax ne kep ko man turam seyram yaram ràmm sawara wax nañu ne ginnaaw xew xew sëñ bara mu cheikh muhammad mu cheikh mu cheikhul khadim radiyallahu taala anuma mo wax ne man mako koy njëkk dom mom nak moom nag sëñ Abdou Lahad bu ko mosaan a gis xarita ma woon lool soppe ma woon lool magam woon am na sax bu ànd sëñ Abdou Lahad bu ko mosaan a gis danaan ko wàlliyu Kajoor sëñ Baar na ko ak fépp waay waaw naa xam naa am na nag nuñ koy waxee noo xam ne nii day mel ne ca fan yooyu rek waaye day mel ne sëñ Laat Baara sëñ Abdou Lahad na ko màggee ay ñeenti at juróomi waaw kon yàlla dogal ci diggante boobu daal sëñ Baara am na tutànk tudde ko sëñ Abdou Lahad 14 la sëñ Abdou Lahad Baara yaakaar naa du fari 19 19 diggante boobu jëm fay waaw kon noonu la la demee sëñ bi woon na ku man turam sa yaram araam na sawara loolu sëñ Mouhamadou Mamoune Niang wax na ko kon nag bi mu ganee àddina njaareem te fii kër gu mag nekk tey fii kër gu mag nekk tey bi ko sëñ bi sañcee mooy ki fa njëkk ganee àddina ci waa kër Seexul Xadim yi moo tax ci atum talsasin du soorik 1920 mu mos a dal jàng Serigne Touba radiyallahu taala anhu radiyallahu taala anhu ma jébbal ko nijaayam Serigne Hamsatu moom ak Serigne Saalix Serigne Abdou Samad Serigne Soyim radiyallahu taala anhum wax Serigne Hamsatu na ko joxuma leen ko nag ngir li ngay seen nijaay. من دوخيما فوف ناخ كوما جور جخناك رسول الله صلى الله عليه وسلم لي تخا ما دي لنكو جخ نك موي دا فا ام لوما وارون ديف تي نيوم تا تابدي تا لولو ديف ناكو تي ياو ما بوغ نغا ديف كو تي نيوم يالا دوغال نك سي بلات موم دانا اندك سيغ عبد الله جاتي دي دومي سيغ حمزتو دي اند دي ديم تي سيرين توبا سيغ ساليو نيوم تا داني اند اك سيغ حمزتو di dem ci sëriñ Touba am na yoon woo xam ne nii sëriñ bi dalee na euh, woolu moom ak sëñ Abdoulaye Jaxate bam bañ bañ accès sëñ Abdoulaye Jaxate boobu mu ngi ci suuratu soore sëñ Abdoulaye mu ngi toll ci suuratu Fath mu mel ni sëñ bi dalee na tereloo seen bind bind ba xaw a desee mokk sëñ bi ne ko fàtte ci cërub saytaane la fàtte googu nag laa bëgg dindi ci yow yoon woowu la ko sëriñ bi waxee lee ŋaal mu ŋaa sëriñ bi taf na ci gémmiñam sëñ la mu ne ko taalal sa loxo mu taal loxam mu taf ci loxam na ko jàllale la Abdoulaye nee nag keroog laa jóge lu ma tiim xam ko lu ma tiim mokkal ko te lu ma mokkal du ko fàtte mas naa wax ne juróom-ñaar fukki nit buñ ma fekkoon ci néegub sarale diggante timis sa gee ku ma nuyu wax ma sa tur wax ma sant jàll buñ toogaatee fanweeri at ku ma joxaat loxo mën naa la wax sa tur mën naa la wax sa sant yoon woowu sax la sëñ Abdoulaye doon wax Abdou Jaxate Abdou Jaxate sëñ Tuubaa ne ko ne sëñ Abdoulaye Jaxate bul nangoo doon Abdou Jaxate doonal Abdoulaye ku doon jaamu waa Jaxate doonal <laughs> waaw doonal doonal jaamu yàlla moo tax sëñ bi tawhiid lu ko mos a ñor la yu saw saw yooyu moo tax sëñ Tuubaa képp ku koy tuddoo képp ku ko yaakaar képp ku xam dara ci moom la mu woote woo te mooy Abdullahi wa Xaadimu Rasuul ku ko bëgg a jox daraja yemal foofu mu yem foofu doy naa yem ci wàll googu ginnaaw ko nag la ko sëñ bi digal ne ko demal sa kër euh, dem leen seen kër nijaay bu dee sëñ Abdoulaye Jax sëñ Abdoulaye Jaxate sa kër bàyyi tax sëñ Mbàkke Jaxate mu defal leen kiis ne ko nag fàtte ci lu fay taañe la loolu laa bëgg a génne ci yow sëñ Abdoulaye Jaxate nee na yoon woowu te nett na ko sax ci ay kese mu sëñ Abdoulaye Jaxate yoon woowu la sëñ bi ñëw indi leen ndab lu fees del loo xam ne dañ koo jaxase ak ginaar ak lu mel ne suukar wala lem ak soow sëñ bi jaxase yëpp jox leen ko ñu di ko lekk yaakaar naa nee na yoon woowu sax leeru Seexul Xaadim bu ñu wax soxna Musinatu kii na ci ginnaaw ko nag la tifli nag ci gémmiñam am nañu waxaan sax wa innaka la tulqal qur'aana googu yi ma waxoon sànq la sëñ bi euh, jàng daal di leen bu ngeen bindee bu ngeen jàng alxuraan ba mokkal ko yéen ñaar ñi seen mbir maa koy féetoo duma leen boole kenn mhm. ci atum dam sasin du sori 1925 àndaan nañu yoon woo xam ne nii moo ko sëñ Abdoulaye ñëw seen Touba yoon woowu la leen sëñ euh, Touba joxe ñamu àjjana loolu sëñ Abdoulaye Jaxate nett na ko ma dégg gémmiñam sama nopp mu ne da leen woo ba ñëw mu ne dama leen bëgg a jox lu bokk ci àjjana nee na euh, am dugg ci biir indi ci loxoom loo xam liquide la te bu ko juttalee di tuuru mu jël ko di leen ko jox sëñ Abdoulaye Jaxate nee na sax sëñ Abdoulaye fa la jógee moom caf ak àddina àjjana googu moo def si gémmiñam nee na daana lekk cere ju forox ba am ay fan te du yëg foroxaay bi ndax caf ak àjjana googu des ci gémmiñam waaw daana naan café gu amul suukar def ci fawar bam te sap te du yëg <laughs> du yëg euh, naqaraay ba lii ma wax sax sa iblaay jaxante def na ko ci marsiya bi mu defal sa iblaat nee na ko utaimta min janatin taaman حلاوته أن تتحمل لما كان خبل خلا يوم وهو لن يحيي نياري كامل نين ما يملنكو دمالنكو أبل نينكو ديل بعد ديل بعد آه، تيمان كون جارنا كفهو آه، واو كون بيني ويتي سيم سوتنا سيم سوتنا نبغى خل بوالي كوني وقت سيم سوتو جهاته دلنا بوالي كوني وقت سيم ألسان جهاته سيم ألسان من بقول باينك بين سيم ألسان جهاته moom leen jox ñoo ko doon euh, jàngal ba ni mu mokkale euh, ba bind kaamil euh, te booba ay atam néew na lool waaye bi mu bindee kaamil bi nag yàlla dogal na jotu ko yóbbu ci Cheikhul Khadim ci li gën a wér sëñ Mouhamadou Moustapha mi magam di sëriñam di wasilaam moom la ko jébbal euh, ginnaaw bi ba 1927 ci atum bam sa sin ba bi bàyyam di wàccu liggéey bi nga toll ci fukki at ak ñett ginnaaw ba tamit mu jébbal léppam magam ja euh, Cheikh Mouhamadou Moustapha mu nga xam daane wax ne lu leen naqari ci man rek sëñ Mouhamadou Moustapha la ndax lu nekk ci man moo ko def ci man moo ko yóbbu moom ak mbokkam yooyu tindoo ku ñuy wax sëñ Muxtaar Jàng gu yaab doon nañ euh, jàngal foofa ba euh, ni sëñ Mouhamadou Moustapha radiyallahu taala anhu euh, ngir mu leen di jàngal xam-xam mu jàngee foofu xam-xam ba doon kaang ba doon fóore di aalamu kullu fanni soo xoolee xasida gi mu tënkee moom. في بلعر يقودني لكثرة الxasaayid kawnaka indi mukathir alfawaid muy bayit boo xam ne sëñ Tuubaa ko def di wax yonent bi ne ko yow yonent bi li tax ma bari ay xasiida mooy dangaa bari njëriñ ci man fi iblahat abbu bayit woowu sëñ Tuubaa moom itam da ci tagg sëñ Tuubaa nee na xaat katabahu sukran lillahi taala ala xadir Mustafa sallallahu alayhi wa sallam xasiida gi man fi iblahat maa ngi ko bind di sant yàlla ci sëñ Tuubaa moo tàmbalee yaaman bi nuuri jamaalihi wa takarramu wa bi xidmatin لجنابه يتعلمه قلبي لسكرك قد حته محبة يا من أراني من كثير يكتب نانا يوم سنتبع يو يا كيغا خامني سات ليرك تار لا ني ساكو تبل لا ني جانغيت موي خام نان لي ليغيلي ني سما خول بي نك تيوفال مكو بوسي تي مودي لا سانت اك مبغيل يو سنتبع يا وان تي يو نك سيكري بو خامني دنج كوي نيب باغ تي ودي سما تيوفال سما مبغيل وساوخي سما بغل ساوخ والمحمد اك سما تفال ييب كليها دجال نako جخ لاكو ياو سيرن توبا امنا ген خاسر گوم تنكي اد خالتو بيم تنكي احتيت كل يوم آه، بلا انقطاع كليتي يا خادم المطاح امنا گوم تنكي انما لاث بالخادم مرادي لاث بالمصطفى سبيل رسالي amna gum tanke rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri momi itam def na ko ay khasida kon saaxir muflih la way kat la bo xamni nak dimanche bobu ñu bari xooluñu ko fa wa kon nak ginaaw bi nga xamé ni cheikhul khadim ñëw na fii Touba cheikh mahamoud mustafa wutu ko la jël léppam jibal ko cheikh mahamoud mustafa ba ci sax ba yéwénal mbirum sëñ bi ci sahir ci sharia lam ci amone da koo jël jox ko Cheikh Mouhamadou Moustapha boole ko euh, boppam nekk tindoo di ba ni sëñ Mouhamadou Moustapha indi sëñ Abibu euh, Touba ba ci 1932 sëñ Moustapha jox ko ndigal mu dëkkee fii ñu wax Daaru Rahmaan euh, ñu gënoon ko xam ci Daaru Naar muy fii kër sëñ bu nekk foofu sëñ bi sëñ Abdou Lahad nekkoon na fa mhm. nekkoon na doomu bàjjanam wala doomu nijaayam ñuy wax soxna ma rema jaxate doomi sëñ am sut la na fa doom ak ku ñu wax soxna Mariam Mbacke dafa gaañu nekkoon na faa ku ñu wax soxna moom si si waa këram la bokkoon soxna am la woon doomi sëñ Momar Bassine si la ginnaaw gi sëñ bi sañ ci kàddu ba loju ci atum 1932 sëñ Dame Touré sëñ Cumbaleel Xuma ñu nekkoon na fi ba ci 1935 mu dem Gelaw euh, Ngel ci wetu Colobane foofu sax gelaw ngal foofu ak kolobaan maam asta silla mii waajuru sëñ siidi yàlla na ko fa yàlla yàggal nekkoon na fa am nañu wax ne foofu la sëñ siidi euh, gane àddina ba ci 1935 euh, goobu mu sañ ci badeen ñaan diggante kajoor ak bawol sëñ ci yaakaar naa dëkkub sëñ Musaa Yar ñaan la 1936 nag la ko Cheikh Mamadou Moustapha jox ndigal mu sañ ci euh, kàbb gay waaw ci ndigalu ak Cheikh Mouhamadou Moustapha sëñ Mourou Moustapha def ci doxalin bu rafet ndax yaakaar naa yebaloon na fa sëñ Mbàkke Madina sax waaye ginnaaw ko moolu ko yebal fa sëñ Abdou Lahat dajale waa seenu sëñ Tuubaa mi ngi noonu yaakaar naa foofu sëñ Mourou Moustapha na fa gane na ko fa ñetti fan rakka joo xam ne magge nga ko sab taaw sax nga ko mag nga mën koo defal lii loolu jëf ju rafet la ñu war di waxtaane ci biiru mbokk mhm. te booba mi ngi am Euh, ñaar fukki at ak ñett rek 1936. waaw waaw kon nga xam ne euh, li ko Cheikh Moussa euh, màggee bare na waaye teewul mi ngi koy bàyyi xel xam ne rakkama xam ne doomi sëriñama di xool sëñ Tuubaa ci moom moom itam mu def ko kilifaam def ko sëriñam def ko wasiilaam di ko xoolee baayam di ko xoolee sëriñam kon noonu la demee ci at moom la sànni ci mbaraan jàng hmm, ci xaw Touré Daaru Touré. ba ci daaru daaru ja ba ci 1944 Cheikh Mouhamadou Moustapha di la joxaat ko Daaru Salaam ki Barka moom itam mu sanc foofu euh, nekk fa kon noonu la nekk ak magam ju baax ji ndax moom dafa waxoon ne ñaari ngi nii lu ci waay ñàkk bu dee bëccëg balaa ngoon na ko am lu ci waay ñàkk bu dee guddi balaa nga xëy suba na ko am muy sëriñ ak baay ak kilifa sëriñ ak kilifa loo ci ñàkk rek bu dee suba balaa jant bi soo na ko am bu dee ngoon balaa nga xëy suba na nga ko am nee na ba ma gisatul nag sëñ mënu sëñ fàllu ba ma gisatul sëñ tubaa sëñ mënu fa ak sëñ fàllu ma def ki ki sama waajur def kee muy sama sëriñ bi sëñ fàllu nekkee xalifa nag euh, booba yaakaar naa mi ngi toll ci fanweer ak ñaar mu nekkoon ambassadeur am ci biir ak ci sëñ fàllu seet ne ko kàbbu gay euh, daaru salaam burki barka laa bëgg a wax sëñ Abdou Lahad seet euh, sëñ Fallou seet si na ko foofu fekk sëñ bi génn 1954 sëñ Fallou ñëwaat fa at moomu la euh, sëñ Abdou Lahad tuddee sëñ Fallou euh, doom ñu koy wax sëñ Abdou Lahad soxna Xadiba moo nekkoon waajuram 1954 la gane àddina ci 1954 googu la sanc Bayti Dia mu sanc Mbajaar 1969 mu sañc Touba Belal gis ngeen sax yoonam woowu sëñ Fallou yónni woon ko Côte d'Ivoire ak yoon woowu lam ca doxalee ak la ko sëñ Fallou yónni woon na mu ko doxalee loolu yëpp yaakaar naa ñëpp xam nañ ko waaye diggam ak sëñ Moustapha diggam ak sëñ Fallou nii meloon diggam ak ñi bokkal sëñ Touba yëpp noonu lañu mel wax naa sànq sëñ Baara xaritama woon wëlëri ma woon waaw lu bari seq nañ ko ci wàllu euh, biir ak biti mu njëkk ko tuddee doom diggam ak sëñ Basiiru moom itam noonu la woon mm. diggam ak sëñ Xaadir moom itam kenn lañu woon du ñaar sëñ Saaliw euh, sëñ Murtala sëñ Abdoulahi Borom Dër bi sëñ Ibrahima euh, sëñ bu ñoom ñëpp benn jëmm lañu woon kenn ku ne sëñ Abdoulahi daana xool ci yow euh, sëñ Touba moo tax sëñ Murtala Jaay nee am na ngërëm ci ku ko mag ci Bàmba ak ak kum mag ci ba ngir pësif ba سيب لاي جاخ دينا فخر المريدين سيب لات موي ندمال مريدي من افدا دماسته لآل والده وما هنم كثيرا موي كيغا خامني دا فا بوب نويوك جيكوم جيمالي كو سي واكر واجورم تا مستا يوقات سي نيوم مستا تاير نيوم عامي ثمارهم اولى لجملتهم تحتانه خير جافن من لا با سي 1968 نك يور يوروب التيني سي اتوم حصص 1388 tolloog 1968 nag mu soog a nekk euh, xalifa kon noonu la demee lu jiitu loolu sëriñ Mor Absa Lo sëñ Tuubaa joxoon na ko ab ndénkaane ne ko ndénkaane bii kat dama la ko bëgg dénk waaye bala mu la ko dénk na wut néeg boo xam ne tën a sawara néeg boo xam ne tën a euh, sàcc wut gaal goo xam ne tën a euh, max ak néeg bu të sawara ak gaal gu të euh, max ak ngannaay loo xam ne saay-saay du ko ñeme sëñ Mor Absolo tabax néegu ban wut gaal ak weñ wut fetal def ca ñëw na ko def naa ca loolu sëñ bi sox koo jox ndénkaane li ne ko ndénkaane nag boroom bu koy jël si du fekk du la fekk waaye bul ko jox ku dul borom na wut nag sa njaboot koo wóolu bu ko defee kooku mën a ñëw eh, nga xam ne bu ko borom di jël si kooku moo moom la fay fekk sëñ Mor Absa Lo tànn doomam bi ñuy wax sëñ Saliou Lo moom la jox ndénkaane boobu sëñ Mor Absa Lo sëñ bi dafa wax na ko daa xam dénkaane lu ma la bëgg a dénk bëgg nga fàggalu ma ko ab néeg damaa bëgg nga defal ma ab néeg boo xam ne sawar du ko yàpp ak gaal goo xam ne max du ko yàpp ak ngannaay loo xam ne saay-saay du ko jege sëñ Mor Abdou tabax ñaari néegu ban ànd ak werandaa ut gaal gu mag ut fetal gu mag ñëw sëñ bi wax ko loola sëñ bi jox ko ndénkaan ne ko nag ndénkaan duma la wax boroom waaye saa yu ko borom jëlsee nañ ko jox waaye bu ko jox ku dul borom li ma la jox su ko borom di jëlsi du la fekk xadd na ma it du ma fekk xadd waaye bu ko jox ku dul borom su la ko borom laajee na nga ko jox waaye dangay seet sa njaboot euh, koo yaakaar ne mën naa denc mbóot am fulla mm, nga wax ko nii ma la ko waxee xànd ak moom dem di ko saytu boo sooy dem mu des. sëriñ bi jox ko euh, sëñ Mor Absa Lo sëñ Mor Absa Lo téye ko 1927 euh, sëñ bi wàccu liggéey yaakaar naa 1943 sëñ Mor Absa Lo wàccu liggéey sëñ Saliou continué yor dénkaane li ba ci 68 69 diggante boobu sëñ bi laxat na jërañ këram ñëw xaw koo junj lu jëm ci loolu nekkoon dénkaane li sëñ Tuubaa bàyyi woon moom laa ñëwoon di jël si mhm. ni mbir ma àggee ba sëñ Mor Absolo ba sëñ Saliou Lo jox ko dénkaane la ba mu ko joxee dénkaane la lettre bii la sëñ Abdou Lahad bind ne ko yow sëñ Saliou Lo nuyu naa la gërëm la lool sant la lool li nga ma defal kenn kenn ku ma ko mos a defal ku ma a defal lu ko jege amul ci mbooleem ñu yaakaar Seexul Xadim te lii ma la wax te lii ma wax wóor na yàlla mi dara xumpul jaamub yàlla nag yàlla dafa santaane bu ko moroomam jaame defalee bu ko moroomam dafay lu jar ak tant mu sant ko cant bu wér ba mu xam ko li nga ma defal ku ku lëf ku leuf rawon du ko yitteel lol waye yàlla def na fat nako ba amu ci ben pexe mudul dul muñ taxand ak autis ou wu nga dabal ko mbollem la ko rawon lépp jox ko li nga ma jox ni mu gëne mbollem aduna ak li ci bir ni dama ma mbollem aduna ak li ci bir wallahu ala dalika shahid جسال الكنت لا يبل سين غرسي لولا ميور إظهار شكر لما يفني فني الكنت رك فقط لا خير فأجركم على الله تعالى وعلى الشيخ القديم نفعنا الله ببركاته فجزاكم الله تعالى خير ما به جزاء عبدا يرضي إن كان لتر بي لا دفع جو قصين سالي له أما أن صح إذن لتر بلولو ويسو تميل سرين همسة جاحته موم شيخ القديم Seexul Xadim joxoon na ko ab dénkaane ne ko téyal ma ko bis bu Abdou demee ba toog sama jotaay nga jox ma jox moo tax bi sëñ Abdou toogee xalifa ba mu jox ko ndénkaane loolu ba noppi la wax ne euh, mën naa waaj lii moo lii moo woon gudd na fan lool waaw weesu na juróom-ñeent fukki at ak euh, lu topp kon noonu la demee ndeysaan sëñ Moussa Alima Guèye daan def bu ko sëñ Tuubaa bu ko mosaan a gis naan ko yaa Moussa aqbil wala taxaf innaka minal aminina ndeysaan keroog ba sëñ Abdou Lahad toogee xalifa mu ñëw di ko seeti da koo jub rek sëñ bi ne ko yaa Moussa aqbil wala taxaf innaka minal aminina keroog loolu da ko def aal kon boog mi ngi noonu waaye bi mu agsee rek di xalifa discours bi mu njëkk a def rek wane ñeenti ñi bokkal sëñ Tuubaa أكن كل نمي دخل يا ورق لا وانا في مورا جار ورنا مم سخار لا تسخار أو يندك لي من جار لم جك اللي جيل سنتو أبم دوني خليفة ما يمير جماعي وعي ليرا نتيمت نال لابو سن فال بايون مركو أقل مرت مرت على جاني نكال أكسدال لمير جماعي دفعل كو أي لامب مور موي واجا برامو سن جو مغل موكو يسل دفنا فصوي دفنا فورس جمون مو بنترار خلبيا لالتي تابي décor biir ma mel ni ndax caa noppi ndekete am nuyoo la def ci delsi lam ci defaat mayit danaa ci delsi lam ci defaat mayit danaa ci delsi mooy yokk jumaa ji waaw def ci milliard euh, ak genn wàll mhm. kon mi ngi noonu kon liggéeyal na sëñ ci euh, njaboot gi liggéeyal sëñ Tuubaa ci doom yi liggéeyal sëñ Tuubaa ci euh, dëkkam bi liggéeyal sëñ Tuubaa ci taalibe yi kon fa may jeexal rek mooy tuuti rek ci ay jikkoom moom de ku bëggoon sëñ Tuubaa la bëgg ay waxam bëgg ay jëfam bëgg ay doomam bëgg ay taalibam bëgg taggam moo tax diwaanu Cheikh Ibrahima Diop Masar bi li ci ëpp da koo mokkal ngir bëgg taggi sëñ sëñ Tuubaa yi waxoon na ne sëñ Tuubaa dana billaahi lasi laa ilaaha huwa xayaati wa mamaati wa harakaati wa sakanaati maa Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam mu ne ko noonu ci sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa dana Euh, sama dund ak sama dee sama yëngatu sama dal lépp def naa ko mu ànd ak Seydina Muhammad mu ne moom defee na ko noonu sëñ Tuubaa mas naa ñëw sama kër baay fekk ñu teg photo moom ci kaw photo sëñ Tuubaa ak yenn photo dafa si gis photo sëñ Tuubaa bi ci kaw ak photoom mu tudd yàlla ne laa ilaaha illallaa Cheikh Touré mun ne ko mbàkkee mu ne ko ñëwal mu ñëw mu ne ko wàcceel sama photo bi ak photo yi ba mu des photo sëñ Tuubaa wala du ma toog ñu wàcce foto yi mu ne sëñ Tuubaa kenn warta nekk moom ci kaw daana wax ne du ma kenn ku dul taali sëñ Tuubaa bu ko fas yéene liggéeyal di sàkku ngërëmam loolu rek ci laa ne te du ma ci dool dara ba muy wax mbirum naayib ba dañ koy woowee naayibul xadim dana man du ma kenn du ma lenn taaliba sëñ Tuubaa laa bu ko yaakaar tey topp ndigalam ma di leen xamal ne moom ma di leen xamal ne moom xamul lul moom jéem maa xamat lul moom xamisuma lul moom jàpp ma dara it lu dul moom yëpp laxat ku yar la woon foo ko fekk ci suñuy toog wala mu ferenku laay euh, wala suun nekkoon ku yor ay cëram mos naa taw ba noppi mu génn belal am ko gàddu sees di ko indil mu ñëw ferenku laay ci bàq bi daan euh, yaram bi di xanaa dañ ko sutaal ngir yëre yi rek waaye jëmm ji moom ci suuf si lay mujjee am na bis boo xam ne màggal Tuubaa mu génn ci ko sëñ Tuubaa dem këram diggante boobu mu fees tell ki ma koy nettali sëñ Cheikh Thiolo moo koy nettali ma doon dawal kër gi fe mbedd mi fees dell nga xam ne diggante kër sëñ Touba ak am nañ fi diir bu yàgg ngir mën ne dafa wax sëñ Cheikh Thiolo sëñ Cheikh ko ah nit yëpp seen xelaf ji yow rek la mu ne ko ah man de wut naa yow xalaat man de fi mu toll nii lii li may fàttali bis bu bis bu ñu ma tegee ci jaar dama jéggal sama borom kon foofu la nekkoon kon ku baax ku tabe ku yeew ku xam fit Kumat mat ku kuham ay jëf ku xam toleraaf ku dul fatte ku rafet xalaat ku mat ku man gan ku jambar ku xam yek ku xam wóllare ku sawar ku wér ku deug ku set ku bëgg lu baax ta bañ lu baax may Cheikh kon euh, fi may daane rek moy li ma don wax nak li koy firndeel lii ab leetar la bo xam moko bind te ci ay dongam la don waxal 1959 la waaw mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu baadu yow Cheikh Oumar maa ngi lay nuyu lu bari di la yëgal nag ma waxal fere yi neen gërëm naa leen bu baax sama xol seet na guy ci seenub liggéey yàlla na yàlla seral seen xol àddina ak alaxira waxal ma jëwriñ yi ne leen ni nu taxawoo seenub liggéey seenu woon naa ne danañu góorgóorloo waaye jàpp ma woon ne danañu ko defee nii ba tax na sant naa leen lool cant gu wér ci man waxal ma gone yi ne leen topp gi ñu topp ci ñi ma leen booleel ba ñu mën a ànd yow ñoom seen liggéey jàpp mu defe ne dañu ko defee nii ba tax na ñoom it sant naa leen cant gu wér ci man sama xol sedd na ak seen liggéey yàlla na yàlla seral seen xol ci lépp gannaaw loolu nag seen tool boobu yi toolub Sëriñ Tuubaa laa ko def ngeen ci yéene kenn ku ne na fas la mu bëgg àddina ak àllaaxira yàlla defal ko ci liggéey bi bi mu ciy liggéey yow Amar Diop sa tool jox naa ko sëñ Amsatu Jaxate yow Abdou Guèye sa tool jox naa ko sëñ Saali Mbàkke yow Abdou Diouf sa tool jox naa ko sëñ Soñ Mbàkke loolu nag dimbali sama moo tax ma def ko kon nag digal naa leen dolli ko pas-pas ci xàggale ko ci xàggale ko bu rafet te sell kenn koy ne fas na fasoo bagal ci toolam te rafetal ko te fas yéene mboolu te fas yéene mboolu sax bu mu ko ci def yéen laa xandal yéen laay dimbali ak sama bopp yàlla na yàlla dimbali yàlla na yàlla dimbali leen jéggal leen te sàmm leen mm, kon mi ngi noonu fii la nekkoon yàlla ñu ko yàlla euh, fayal waa kay jërëjëf waaw xam naa fi ñuy tàggoo rek mooy di wane ne lii ñu wax ci Sëñ Laat day wane matuk Sëriñ Tuba ak fees gi mu fees jamono mboolem ñi mu bokkal Sëñ Tuba li may wax boo génnoon turam koo fa dugal mhm. nga jàpp ne moom la kon ñoom ñëpp Sëñ Tuba ju taxaw lañ ñëpp Sëriñ Tuba ji taxaw lañ kon maa ngi sant di jégalu su may daane daal mooy daana wax ne mhm. kóor gu naan du ma dugg ci la hmm. ma mënul ngay dee doo xam sa li koy ndey waaw dugg ci ngay dee xam sa liggéeyu ndey daana wax ne euh, xel mu gudd te ñaw te ñaaw xel mu gudd te ñaw te ñaaw wecc xel ma gudd ta ñaw ta ñaaw wecc na wilaaya xel moo xam ne guddul gàttul rafetul euh, ويتنا نروح دعنا وحنا سوي واحد قنة بمن ثان باي نينا نينا ما يكون نبت خمنا وقت الواحد قنة واحد مغلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله mën nañ koo wéyal ndax jàmbaar la joo xam ne da ko joxoon yàlla eh, joxoon ko Serigne Bamba Khadim Rasoul mën nañ ko eh, yendoo di ko fanaane te du jeex mukk nag waaye eh, dañ xam ne bëgg nga am ngërëmal Serigne Touba bëgg am loolee mu dëgloon ci ko def màggal gii nga xam la ko ko boromam yaakaar naa boo royee ci da nga am da nga am ngërëmal Serigne Touba ndax li koy Serigne Touba di jur jur li doon doon mbokkum ñëpp ci Sénégal a la ndax cër yi amoon li ko sëñ Tuubaa di waajal ci judd diko wadjal ci lepp ci batine ak zahir lepp mu wadjal ko ko teewul Cheikh Abdoulaye dafa teewul lepp don talib seigne Touba ndax kat firnde ji moy telna ñak ñàkk waajuram ya, waye teewul mu doon won dan Cheikh Modou Sa defon ko Cheikh Abdoulaye seigne fallu ba bi mu seigne Touba mu mat ko sëkk nag kon yalla nako yalla fayal seigne basir yalla yalla deugal taxaw yu baax a baax ba li nga fas mu bëgg liggéey seigne Touba nga def ko ni nga ko bëggee ni nga sant bu baax Cheikh Abdoulaye sam bi nga xamne mo nekkon ci eh, caméra bi nek tam ci technique fa la ci radio jant bi FM ni nga sant mbokk yi xamne yeen yéen ngi doon di len joxat di daje ci ci tay suñu borom mi borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xam xam ne del jàmm mukk wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen site bi di jant bi TV di site buy woote jàmm liggéey jub juboo jubale ak jaamu yàlla ngir njariñul Sénégal gi ñu bokk ak jant bi TV aboneel bés kolos bi man di topp mboolem suñuy programme te lépp lalu ci jàmm